seetaan à travers plateforme yi fi nekk ñu leen di tuyu bu baax a baax comme saa su nekk rek di leen dalal di waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di suñu papa Iran comme ni ñu koy defee chaque samedi rek di ñëw fi nga xamante ne moom moo di Sen TV di waxtaane actualité moo xam politique la fait divers wala sax li nga xamante ne moom moo di people euh, tey nag ñu jàkkaarloowaat ak moom nar waxtaan ak moom waxtaan bu am solo papa Iran nuyu naa la bàyyi la nga nuyu mbokk état Dakar di leen baal wàq di ñaan suñu boole ñu jéggal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam papa yi daal li ñu koy doore nekk li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi euh, gàmmu moom atiu llah wa wa ulul amri minkum wa atiu amri minkum nañu waxtaanee jaamu yàlla naka la ñuy jaamooy yàlla ndax nit ñi ñu bëri xamuñu dara ci jaamu yàlla ñu bari nag laa la wax ñu bëree ngi dem di euh, ci gàmm yi duñ xam dara jaamu yàlla nañ leen jàngal jaamu yàlla ba ñu xam luy jaamu yàlla ñu jàngal leen roy ci yonent bi ba ñu xam luy roy ci yonent bi ñu jàngal leen jàpp ñaari jur naka lañ koy defee lii mooy gàmmu mu jeex bu ñu xamee yàlla roy yonent bi ah topp suñ ñaari wuy jur ñaari wuy jur nag la yàlla xam nga yéen am na lu ngeen dul seetlu ci nit ñi xale boo góor boo gis mu ne man daal man maa ngi bëgg yàlla dimbali ma ba ma yóbbu sama yaay màkk waaw sa baay noo koy def ñëpp seen bi yaay rek la ñuy wax te yàlla waxul loolu yaay ak bàyyi la wax wa bil waalidayni ihsaanan sa ñaari wuy jur la yàlla wax waxul nga wax jàpp jàpp sa ndey rek yonent yàlla Isaa rek la ñu may mu jàpp ndeyam ndax amul baay wa barran bi waalidati wa barran bi waalidati moom rek lañ may loolu moom mu topp ndeyam ndax ndey rek laa am amul baay waaye nag am sa baay ba pare te doo ko topp du noonu dangay topp sa ndigalu baay topp sa ndigalu ndey loolu mooy mooy mooy mi moo tax moom moom moom wa baran bi waalidati waaye ku dul moom ñun ñëpp dañoo war a fonk ñëpp fonkal sa baay fonk sa ndey fonkal sa baay fonkal sa ndey fonkal sa baay fonkal sa ndey ñoom ñëpp nga fonk leen waaw kay kon nag gàmmu mooy dañuy waxtaane yàlla mi ñu bind lu tax mu bind wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni maa bind nit maa bind jinne dara taxul ma bind lu ñu jaamu ma waaw kon jaamu yàlla niñ koy defee nga wax ko nit ñi ñu xam ñu xam ne lii la ñuy jaamu yàlla xëy na du xaj sa ca ca détail ba waaye du tee nañ ko def rek nañ ca boyal dara waaw suñ paree wax nit nag nañuy roy yonent bi ndax yonent bi lañu yàlla booleel nag waaw bi lañu yàlla booleel waaw gannaaw moom lañ ñu booleel te kiñ la booleel boo ko sàgganee doo dem kon nañ xam kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi bi ci des mooy ñaari wuy jur ñu fonk leen ku am baay na ko fonk ku am ndey na ko fonk ko sa baay faat sa yaay dund nga fonk sa yaay di ñaanal sa baay nit daal dafa war a fonk ñaari wuy juram waxuñ la nga jël sa benn wuy jura nga xale boo gis mu naan man daal nga ba paasu màkk laa bëgg yóbbu sama yaay màkk mbëri yéeg mission yéeg ñëpp loolu la ñuy wax ba pa yóbbu sama yaay màkk waa an sa baay boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo baay looy wax waaw waxal boo demee yàlla ne la yow xanaa amoo baay nooy def wala doo dégg mukk ne fonk sama baay fonk sama ndey rek nga dina yàlla ñaari wuy jur la wax wo waalidin wa maa walada ñëwaat na wa waalidin wa maa walada boo defee nag loolu ñu bàyyi ko xel buñ ko xamali nit ñi rek doy na waaw nañ leen xamal loolu waaye buñ fa indi ay xuraafaat ay wax yi nangam na non ni ñu wax li nga xam ne moo tax yàlla bind ñu muy jaamu yàlla ñu xam yàlla xam yonent bi xam suñu ñaari waajur doy na sëkk loolay xam-xam xam yàlla xam yonent bi xam suñu ñaari waajur doy na sëkk ati ollaaha mu jeex wa atiu rasul mu jeex wa ulul amri minkum mu jeex waaw topp leen yàlla jaamu leen yàlla roy leen yonent bi toppatoo leen seen ñaari waajur waaw gàmmu nga lépp yaay la ñuy wax euh, ndax li nga xamante ni moom la ñu laajal yonent bi mu wax trois fois yaayam ñu bëri ci loolu la jàpp moo tax à chaque fois bu ñu waxee rek ñu ni yaay ñu ni yaay naka la xam nga loolu ay ay ay wax la rek yoo xam ne dañ koy sànni rek yàlla dafa wax yonent bi ne ko nañu fonk ñaari way jur waaw muy baay ak ndey nañ ko fonk fonka sa baay fonka sa yaay mu jeex soo leen fonkee fonk nga lépp waaye boo leen sàgganee doo dem boo dégg yonent bi ne boo amee ñetti junni joxal sa yaay ñaari junni ndax moo gën a néew doole jox sa baay junni bi ndax am na doole waaw waaye xoolal buñ ko jëlee jox ko jox ko sa yaay boo joxee sa yaay ñetti junni jox sa baay benn junni sa yaay bu fekkee mat na jigéen mat na jigéen te nekk sëykat day jël ñaar junneem jox jëkkëram waaw mu booleeg mu booleeg junne muy ñetti junni ndax moo yor kër gi waaye bu dee léegi nag ndaw si da koy jël fas waaw da jël fas waxuñ la jox sa wuy ñaari junni bu jigéen sa wuy jur bu góor nga jox ko junne loolu loolu taxul ñu ne la nga fonk sa ndey bàyyi sa bàyyi taxul taxul la de dañu ne la fonk leen ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp loo am taxawu leen loo am fonk leen loolu moo gën waaye nag sàggane sa wuy jur euh, sa wuy góor euh, jël sa wuy jur wu jigéen yëkkati ko loolu loolu dara dangay fexe ba ñoom ñëpp ñu gërëm la dañ la gërëm ñoom ñëpp suñ la gërëmee rek nga dem soo fexee ba sa baay gërëm la sa yaay gërëm la nga dem waaye kër goo xam ne sama ndey sama ndey rek lañ fa bàyyi ci biir kër gi bàyyi bokkul lu loolu loolu ah de doyul waar koy ëpp naa tool waaw donc kon nag ni ñu fonk wuy jur yi bàyyi fonk ndey fonk ah bu ko defee nag mu baax waaye waaye jël cër nag jox ko keneen koo xam ne da ngay gis taal ba tey koo xam di jël cër bu rëy rëy jox ko nit ki jël euh, bàyyi bàyyam ci gannaaw bàyyi ndeyam ci gannaaw waaw jox jox ko duñ ko jox seen wuy jur jox ko baayam duñ ko jox seen baay duñ ko jox seen day dañ koy jox benn nit ti loolu du dëgg eh, gis nga eh, maa ngi déglu benn eh, waxu sa Pape Sylla Pape Sylla benn la tudd Pape Sylla mu ni sëñ Mansour dafa am benn bés dafa am benn bés jom Diop soo jógee meewaan indi ay ginaar yu ngand ma ganaar yu rëy rëy ba ko indee ñëw Tiwaawan laajte ko ñu ne ko moom de dem na Mboro mu toppaat sëñ Mansour ba Mboro ba mu demee mu teg ganaar dem nuyu ko waxtaan moom yëkkati enveloppe jox ko ne ko mu ne lii lan la mu ne ko lee ay ganaar la mu ne ko ganaar yi moom foo ko jëlee mu ne ko ganaar de maa ko yar mu ne ko sa biir kër nga ko yaree sa kër baay mu ne ko waaw mu ne ko ba mu toll nii mu ne ko waaw mu ko jël ko indil ma ko pour man dawaloo ko mu ne ko mu ne ko ya déedéet da nga delloo ko sa kër ga soo demee nga jox ko sa baay ak sa yaay ñu ndawaloo ko man ko topp ñaari wuy juróom laa mën a ñaanal waaye du mënumaa ñaanal ko toppul waaye ñaari wuy juróom wax bu dëggoo noonu amul fenn sa ñaari wuy jur boo leen toppee ku la ñaanal mu nangu ku la ñaanal mu nangu ku la ñaanal sax boo ñaanal sa bopp mu nangu boo ñaanu sax yàlla defal la waaw fonk wuy jur dafa baax fonk sa ñaari wuy jur dafa baax sëñ Babacar Sy radiyallahu taala benn xale mas naa ñëw euh, tabaski jot mu am trente mille francs baay bi ne ko man de tabaski dafa ñu ma bëggoon nga dimbale ma tabaski bi mu ne ko ah man sama li ma yor sëñ Babacar laa ko yóbbu sama sëriñ waaye nag gis nga sëriñ ba ma sëriñ baax na na fa taal bi na bi ba dem rek ba mu demee fekk sëñ Babacar a ngi toog mu ne ko boo demee ziyaare waatal ma ko seetal ma sëñ Babacar bu baax ba mu mu sukk dirang dirang dirang ba yegg sëñ Babacar sëñ Babacar nuyu ko téye ko ne ko naka def mu ne ko maa ngi mu ne ko ana sa bàyyi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko nga enveloppe bii lii ci ne ñeenti junni yóbbu ko mu boole ko eh, ñaari junni yam yore muy juróom benn junni mu def ko tabaski bi mu tiit lu ko wax sëñ Babacar a ko jaaxal buy wut wutal sëriñ bu xam lépp sëriñ boo xam ne dalay fegal ay musiba waaye tey boo ko joxoon benn am na sëriñ boo xam boo ko joxoon moo la waaye itam lii daa tuuti waaw ah, man nga ko def lu bari waaw ah, xepp waaye def koo naw ni ko yóbbul ko se wuy jur soo demee boole ko la nga ko joxoon génn ko tabaski mu jëndee ko tabaski loolu muy wuy jur waaw ah, kay. alors li nga xamante ni moom moo di gàmm yi gis nañu ko sax même màggal yi folklore moo ci ëpp ci niñ koy defee est-ce que loolu am na loo xamante ni lislaam mën na ko cee teg comme ay daan. Euh, ngene ngene lana lana muy ak màggali maanaam xumbaay yeeg mbumbaay affaire di affaire kii daal di affaire àdduna waa waaw comme ni ko olof di waxee mooy puukare boobu man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha ku def lu baax sa bopp nga ko defal ku def lu bon sa bopp nga ko def nañ leen bàyyi gis nga gàmm yi nga gis ak euh, gàmm yi nga gis ak kenn ku ne ak la nga la nga dem loola ngay am waaw kenn ku ne la la yóbbu rek ngay am ku dem pour tiitaru loolu ngay am ku dem ngir yàlla lool ngay am ku dem ngir yonent bi loolu ngay am ku dem ngir sëñ Tuubaa loolu ngay am nit ki dafa war a seet la tax mu dem alaaji Maalik dafa wax ne allah azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami odulu loolu la Seydi Haaji Maalik nee na màggal leen guddi juddu yonent bi su fekkente ne nag lu xaraam du fa am bu fa lu xaraam di am nag bàyyi leen ko waaw kon nag moo tax am na génn góor gu ñu waxoon ne ko waaye itam doo gàmm mu ni mukk ah, gàmm da ngay am autorisation Seydi Hadji Malick rek laa fi xam mu am autorisation bàyyil ma dem ci gàmmum te loolu muy dëgg dajale ay nit da leen di wax lu wóor yéen daal kuy gàmm si ñëwal ngir yonent bi ku ñëw ngir leneen nag man man resuma waaw ñëwal ngir yonent bi kon ñoo ñuy dem ngir puukar yi loolu rek lañ ci am yàlla gëmmul nelawul yàlla du gëmmul laa taquduhu sinnatun wala nawmun yàlla du gëmmintu du nelaw koo koy jaru jax jarul wax ku ne la la yóbbu rek ngay am waaw ah ku ne la la yóbbu ngay am innama al amalu binniyaat wa innama li kulli imri ma nawa kenn ku ne la la nga yéene rek ngay am boo dégguma li nga wax de dégguma li nga de dafa gan ñoo xam ne dañu ñëw pour màggal gi dem daal benn hôtel bañ demee ba nga xam ne war a ñëw ci màgg ñu tere leen ko ah <laughs> ko ko koy ah, ba lañ leen tere ko Cheikh Omar Diagne leen tere lu tax ñu tere nañ ko denc delloo ko Cheikh Omar Diagne nañ denc boobu delloo ko lu tax mu tere leen hôtel bi te di jullit kon ñoom buñ fa daloon duñ fay duñ fay dara ah, affaire bango bu fekkee ni duñ fay ak état bee ko war a fay lool loolu du di kuy jóg ngi dem ci réew dal ci hôtel dangaa fara war a fay hôtel ba nga dal mooy dëgg dangaa war a fay hôtel ba nga dal waaye doo dem ñu la koy fayal yow suñ ni nag nañ leen ko fayal Cheikh Omar ne ah loolu li ñun mënuñu ko jeex na ñoom buñ ko manee baa ñu def ni nit ñi def dem ca gàmmu ga ca màggal ga dal fan ñuy dal buñ paree ñu ñibbi loolu ku ne ku ne ku ne xam nga la gën a jaadu waaw ku ne xam nga la gën a jaadu loolu gën a jaadu waaye daal Cheikh Omar Diagne daal laaj bàngoog lu ko waral laaj bàngoog lu waral daal gan ñooñu daluñ ci otel bi laaj bi nañ ko jox Cheikh Omar Diagne ndax bala ñoo tooñ jàmbur nañ ko laaj mu wax lu tax kon nag mu ngoog Cheikh Omar yaa ngoog mbir maa ngoog loolu euh, waaw man di yaakaar naa ne kuy gàmmu da ko man li ma yaakaar laa man man daal li ma yaakaar mooy kuy gàmmu da ko man man di damay gàmmu sama gàmmu laajuma kenn dara danaa teral nit ñi lu mag 15 jours gàmmu gi doog ko ñëw dara duma ko laaj laajuma kenn dar ko fa joxe yaa xam ko joxool yaa xam parce que mbir da nga koy man yaakaar naa ni Touba waaw waaye xanaa ku fa def yaa xam ku fa deful yaa xam waaye man mën nañ seen bopp Tiwaawoon bu ñu demee mën nañ seen bopp gàmmoog màggal ak yëpp a ci yem nañu nañu préparé suñu bopp rek toog di xaar gàmmu gi daal nañu préparé yow gan ñoo xam ne ñëpp di nga ñëm jëm Tiwaawoon bu ñ ñëwee fa ñuy dal Euh, ka leen di yore danañ leen taxawu taxawu bu rafet danañ euh, danañ am euh, teraanga bu doy ah parce que loolu moo gën waaw ah, moo gën li ci des doxul waaw ah, li ci des doxul kon nag li liñ leen daan defal privilégié ak nangam nangam yooyu dañ koy wàññi fu nañ ko bàyyi sax suñ ko bàyyi woon du wàññi dara du wàññi dara ci gàmmu gi gàmmu gi day dox gàmmu gi gàmmu na boppam ñun dañ ciy lang rek waaye gàmmu na boppam bala nga koo xam nga laaj ñu dëkk ci woon bu gàmmuy jub dañuy jàmbat di jàmm bu gàmmu gi ñëw nag kenn du xam li indi li indi yëf yi waaw gi day ñëw teraanga bi di ñëw kenn ku ne sa danga desal loo xam ne doo xam nu mu toll ndax bëri kon kay doy na gouvernement bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na gouvernement lan bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na muy Touba muy Tiwaawan muy Njaasaan muy fu mu mën a doon ni eh, buñ leen dimbalee baax na xam nga nit doo ko forcé ne ko damay gàmmu dimbale ma kenn lu ko force ni gouvernement bi waxul kenn ne la gàmmool yow yaa seet ne damay gàmmu kon kay koy gàmmu war nga koo man gannaaw gouvernement bi santul kenn bu la santoon nag ne la gàmmool kooku mooy yor gàmmu ga ak la ca war yëpp gouvernement bay koy def waaye nag yow yaa seet sa bopp seet sa gàmm bopp gàmmu gi Alaaji Maalik ga ko doon def yàgg na yàgg na Maodo fu mu mas a nekk def na fa gàmm fu mu mas a nekk dëkk bu mu mas nekk rek def na fa gàmm moom rek ba ñëw Tiwaawan def fi gàmmu moo ay ñaari nit ñetti nit potu dugub ñu togg seen cere lekk jàng def seen ñaan def seen jàng def seen lépp jeex na ba mu ne nag ba mu ko defee mu ne nag yàlla bu fekkee ni lii may def yow rek yaa tax yàlla na jëm kanam soo taxul na fi yem defe naa tax na de ah tax na de tey gàmmu gaa ngi ni maar de taali kenn xamul fu nit ñi jógee ak ak ak la fay xew ci yiw ak teraang ak lépp kon nag mbir mi daal nañ ko bàyyi noonu kuy gàmm da koy man luñ ci indi nga def ko fële baax na xam nga euh, moom daal li sëñ Bass Abdou Khadre wax daal dëgg ñun daal mën nañ suñu bopp mën nañ suñu bopp ñu ngi toppatoo suñu màggal lu ca war danañ ko def infrastructure xaw ma lan nga ko waxee ah du noonu nag naan waaw yaa ñeme yàlla <laughs> waaw léegi nag loolu nga xam ne gouvernement ko moom yoonu état la état la koy bàyyeel moo tax mu ni ñoom nañ ko toppatoo loolu état moo ko moom gis nga gàmmu li état bi moom na ko toppatoo li li li sëriñ bi moom na ko toppatoo kenn ku ne toppatoo sa wàll waaye màggal bu fekkee ne def nañ la ñu war a def la ca des nag mooy loolu nañ dagg yoon yi defar ko dëkk ba ba mu ba mu jaar yoon ndax ndox mi ni muy mel dafay ëpp waaw ndox mi ni muy mel dafay ëpp waaw bu ko defee nag loolu baax na ci dagg yoon yi dagg defar dëkk ba ba mu ba mu jaar yoon ba mu nekk normal loolu moo gën parce que gàmmo da ku koy def ti mënoo ko sooy ba bàyyi ko gàmmo daal man li ma ci xam loolu la boo koy def mënoo ko bàyyi ko bul ci seet kenn parce que yaa ko defoon xam ngeen ne gàmmu Tiwaawan ba adduna tukki duñ ko bàyyi ba adduna tukki duñ ko bàyyi ndax at mu ñëwee ñu man suñu bopp duñ ko bàyyi abadal kon kay baax na màggal Tuubaa duñ ko bàyyi ña jaru xalaat këru mag ñi li fa ne ci ay samp li fa ne ci ay ay ay ay yaakaar duñu tas yooyu yëpp ndax wax wax état Ah, ah état deful li état deful li état na na def la man rek na def la man la mënul mu bàyyi ko diggee ko ci fas ko yéenee def waaye nag boo ko diggee ci doo ko def du baax déedéet alors oustaz ñu am beneen actualité boo xam ne ci la ñu yéey di yàbbi muy bi nga xamante ne ak kii di Aziz Dabala ak Waly mi nga xamante ne dëkkoon nañu ñu fekk leen foofu ca Pikine Technopole rey leen rey bu ñaaw bi nga déggee li nga xamante ne moom moo di xibaar bi oustaz nan la man nag dégluwuma ah bon waaye daal an nafsu bi nafsi ku rey nit nañ la rey loolu la alquran ku rey nit nañ la rey yàlla daal li mu wax leer na simple na ku rey nit rey leen ko ndax wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab su ngeen ko defee da dund bu dee ko def ngeen def ko da ngeen dund dund bu neex dund dund bu dal dund dund bu sell waaye bu dee ko def ngeen maslaa bàyyi noonu da ngeen dund dund jafe-jafe ngeen di dund kon nag eh, loolu la wa fil xayaatu xayaatun yaa ulil albaab ku def loo war def daan nañ la waaw ñu ne waaw bu ñu kompaloo nag ñu ne bu ñu kompaloo donte kenn na ko rey na ñu rey ñëpp ndax attamaali la kompaloo moom dañuy rey ñëpp ñëpp ñëpp bu dee kenn na ko rey sax ñëpp la ñuy rey bu fekkente ne nag kenn rey kenn dañuy rey kooka waaye gis nga li ñu li ñu daal ñun droit de l'homme ñuy bëgg a rey waaw droit de l'homme moo ñuy bëgg a rey lu ñu wax ñu naan lom lom lom lom xanaa ki dee du lom ah waaye ni waaye lom la lom kay lañ ko jox ak xam nañu rey kii teg ci wetam ñu ñaar lom ku ne jot sa wàll waaye droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme di ñu di coow rek ah du noonu nag yàlla daal waxul lool yàlla daf ne an nafsu bi nafsi ku rey rey leen ko loolu la yàlla ku rey rey leen ah, kon kay jeex na ku rey ñu rey ko rek loolu rek la amul leneen amul lu ñuy wiiri amul lu ñuy lëngal ku rey rek ñu rey la waaw ah, rey ñu la waaye dañu gis fii ci suñu réewu Sénégal ku rey ñu rey la appliqué wuñu ko fi mais ginnaaw bi nga xamante ni jéye ji am na Sénégal yëpp koo talal micro loolu la lay wax ñu rey leen wala ñu tëj leen perpète maanaam ñu bañ a tee génnati à vie ah moom leen li yàlla wax laa wax yàlla daal li mu wax man loolu laa wax yàlla nee na an nafsu bi nafsi gannaaw nag nee ñun loolu duñ ko doxal Sénégal ndax nangam nangam dugg na fii ñuy gën di am dee dee yu mel noonu rek nit ñi dee rek gaa yi rey rek parce que ku mu wóoroon ne boo rey nit yow moom sayee dañ lay rey ku kenn du rey kenn du rey kenn ñëpp dañuy dund dund bu sell waaye nag affaire loolu amul dañuy dañuy def lu ñu neex rek loolu kenn kenn du ko def ku rey nañ ko rey ku rey nañ ko rey yàlla nee na bu ngeen di defante rek mu jeex bu dee ko def ngeen def ko rek mu jeex waaye bu dee ko def ngeen maslaa ko mu jàll keneen dana ko defaat waaw ah, kon wa fil wa fil xisaasi xayaatun yaa ulil albaab waaw ah, kay li gën a yéeme ci mbir mi mooy que dañu jàpp ni que ñi nga xamante ni ñoom ñooy présumé meurtre yi euh, comme ki nga xamante ni moom moo di nabule ñoom ñaar yàgg nañoo ànd ba ñëpp jàpp ne ay xarit lañu euh, ñu ni moom moo orchestré li nga xamante ni moom moo di meurtre bi ci ginnaaw loolu nag sénégalais yi dañuy wax ne que xarit amatul booba ba léegi ñu koy sànni ay traak di wax yoo xamante ni si lu bëri la ci ndoddam nag nga jàngate loolu euh, ay xarit lañu waa ñoo def waaye yàlla daal nee na ki rey nañ ko rey ba pare d'abord. kooku moom nañ ko rey loolu la yàlla wax ci alxuraan. Mhm. xarit ak soppe nag man gisatuma ko. mbëggeel mhm. ak xarit bëreetul. maa la bëgg. wax ci làmmiñ li dëgg ci xol waaw mbëggeel mhm. ak xaritoo ah xarit boo xam ne boo wéetee mu jëw la bu wéetee jëw la. bu nekk ay nit ñu lay pexeel moom mu nga ca mu nga ci gannaaw toog di seetaan ko du xarit xarit xarit mooy koo xam ne bu la nit ñu doon jëw seen ko ni noppi leen ndax kee xaritam la noppi leen ndax kee xaritam la looloy xarit waaye boo di jëw ñu seen nit ñu xaal leen sax ba kee ñëw kooko ñëw ne xanaa xanaa diw ngeen wax ah, diw noonu la mel waaw ana xarit xarit amul soppi amul maa la bëgg nga ne sama xarit la ngeen uhu rek waaye xarit dëgg dëgg dëgg dëgg amul kenn ku nekk nga defoon xarit xëy na la wor xëy na la wor def la caay caay goo xam ne waaye yàlla yàlla yàllay buur yàlla moom mu ngi fi rek kuñ tegul yar mu teg la yar bi yàlla moom mu ngi yoru yaram rek di dóor rek waaw loolu du dëgg du yoon wor wor baaxul nit du ànd nit ba ñu ne xaritam nga xëy wor ko loolu du liggéey bu rafet du judd bu rafet du doxalin bu rafet waaw benn du ci doxalin bu rafet alors oustaz li gën a yéeme ci affaire yi mooy ki nga xamante ni moom moo di assis ginnaaw bi mu génnee àdduna dañoo jël ay tuuma yoo xamante ni yu xaw a garaaw la maam lu mel ni borom ñaari tur yi di ko teg ci ndoddam ginnaaw bi nga xamante ni génn na àdduna est-ce que seede yooyu doon na loo xamante lu rafet la ci ndoddam man daal borom ñaari tur mënu ma koo wax ni te fekkuma góor ci sa kaw góor ci sa kaw daal di la séyee waaw kay wala nga fekk góor mu di ko séyee waaw kay bu leen defe yàlla li mu wax ak tëtuuna rijaala shahwatan min duni saa bàyyi leen góor ñi bàyyi leen jigéen ñi fële dem ca góor ña loolu du dëgg ndax góor ah kii sol kabam nga sol kam nga nga dangay da ngay da ngay looy doxal kaba kam mënu ñoo doxal dara laaf ak laaf mënu ñoo doxal dara ah. nit dafa war a am xel waaye caay-caay gu la rek ñooñ daal li ci yàlla wax bu fekkee ne am na waaye nag kii gisuñu ko nit ñi mën a wax rek bu ma ca wax dara man loolu wa man yëmmut wala mu yëttub an wisri yi fawit illallaahi jami amri man daal loolu laa ci xam nit ki dee ci tuubul ay bakkaaram nañ jébbal yàlla lépp moom moo xam nañ ko jébbal lépp waaye us uskuru mahasina mawtaakum yeneen tubi nee ne bu ngeen deelee dee leen wax lu rafet yi wuy deeñ ku ci am mbokk mu faatu nañ ca wax lu rafet bañ cee wax lu ñaaw wax ju rafet jooju la ñuy bind waaye wax ju ñaaw kenn du ko soxla uzkuru mahaasinakum mawtaakum uzkuru mawt nu mu tuddati uzkuru mahaasina mawtaakum loolu la yonent bi wax uzkuru mahaasina mawtaakum maa ngi leen di dénk ngeen di tudd lu baax ci wuy deeñi te ngeen baña tudd lu bon muy uzkuru mahaasina mawtaakum waaw ñu koy bàyyi xel waaye nit dee nga naan wuy góor jigéen la woon waaw kii nangam nangam nangam mbir yi ngi rek te xamoon ne yaa ngi dugal sa bopp yaa ngi wax lu garaaw ndax ki nga koy wax wujji na boromam ngay wax lu garaaw ti bu fekkee amul da nga am problème bu amee da nga am problème kon kay noppil noppil uskuru daal maxaasina mawtaakum bu ngeen manee wax lu rafet ngeen wax ko su ngeen ko mënta wax ngeen noppi waaw fal yaqul xayran aw li yasmut yàlla yonent bi nee na ku mën a wax lu baax wax ko ku mënta wax lu baax nga noppi waaw kay saas ñu gis ni nga xamante ni moom moo di tuuma yi dafa bari woon trop ci li nga xamante ni moom moo di deewu Aziz Dabala gi ak nga moo di waale que bu ñu tourné dañu yoo xamante ni si sax peut être que laale ci parce que yoon tegu leen la tuuma yu mel noonu ñu koy tegu doomu aadama ah, bu fekkente ne wax nañ leen ko ci ñu laale ko ci nit ñi nit ñi mënu ñoo xam lépp nag bu ñu ca laalee daal am nañu yàlla am nañu yàlla affaire nañ leen rey buñ demee yàlla dina régler lool buñ ca laalu nañ leen bàyyi lool moo ci nekk. dafa am tuumaal ne yoon dama ne niñ leen buñ ko defee baax na buñ ko deful baax na ndax kenn ku ne la nga def xam nga ko su fekkente ne ñoom ñoo ko def nañ nangu suñ ko deful nañ bañ ne defuñu ko parce que yàlla yàlla yàllaa ngi gis lépp bu nga bu leen jaaxle yàlla mu ngi gis lépp yàlla mu ngi gis lépp lépp lépp lépp lu xew yàlla nga koy gis ka bokk na ne bokkuma ci ka ca bokkul ñu ne ci la bokkul lépp yàlla nga ko gis yàlla wul dara nañ ko bàyyi ak yàlla rek yàlla moom xam na li muy def dara du ko ump dara du ko réer nañ bàyyi ak yàlla rek ñooñ ñu wax man lu ma ci man yow lu ci loo ci man lu ci keneen man dara yàlla rek a ci xam dara waaw kay ko bàyyi yàlla rek. alors ñu gis kenn koo xamante ni dañu ci la bokk mu tudd Fallou Diop ñu gis ni papaam moo ko jël yóbbul ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi ni leen kii sama doom la ci la bokk acte boobu papa ji def noo ko di jàngate. ah def na def na def na def na def na def de na def it ah, def na loo xam ne daal def la wa fekk koo xam ne daal nga jàpp sa doom ne ci la bokk ah kon da bokk bu ca bokkee nag nañ ko teg ci yoon bu ca bokkee daa rey rek <laughs> rey rek waaw. moom yaa ñu ci bokk ñépp yoon rey na leen waaw suñ leen reyee yoon rey na leen buñ leen reyul yoon rey na leen ñoom ñépp ku ca mën a jàpp rek ku ca mën a bokk rek yoon rey na la waaw ah, yére bu amee sobe nga xam ne sobe saa ngi takk nii nii raxasal lii rek waa bu nekkee ci yére bi di xamu fu mu ne nag fóotal mbubb yépp yëpp fóotal lépp rek reyal lépp nañu rey ñépp ñëpp ñëpp ku ci bokk nuñ koy rey loolu dañ koy bandale rey <laughs> ah rey rek xam dee xam nga amoo amul ñaar amul ñett dee ah, rey amul ñaar amul ñett benn la nañ ko jàpp rey ko bokkul ak nag kii góor gi am jabar njaalo wala jigéen ji am jabar njaalo ji am jëkkër njaalo jigéen ju am jëkkër ba pare njaalo kooku dañ koy jamat di ko jamat di ko jamat ba mu dee ñu sànq ko sànq yóbbu ko ci armeel li suuli ko góor gi am jabar di njaa dem njaalo dañ koy jamat di ko jamat di ko jamat ba mu dee ñu sang-sang suuli jeex na ñaanal ko suuli ko ci armée góor jigéen itam noonu lañ koy def ñoo bokk àtte jamat ba mu dee ñu ñu jël ko sang ko sang jullee ko ñaa ñaanal ko yóbbu ko ci armée la ca armée yi ñuy suul jullit yi lañ koy yóbbu ndax jullit bu mooy yàlla la mm-hmm. jullit bu mooy yàlla la jullit bu mooy yàlla du yéefee jullit bu mooy yàlla la dañ ko def li ñuy def jullit voilà noonu lañ koy def dañ koy dañ koy jamat ba mu dee ñu sang ko sang ko jullee ko yóbbu ko ca armée waaw ku koy jullee ku mel ni man rek fàq man boo xam ne tekkiwul dara noonu na ko jullee nit ku dul dara waaw nañ ko jox ku mel ni man rek ma jullee ko ma ànd ak gaa yi ñu yóbbu bu ñu demee bàyyee ko fa. tekkiwul dara est-ce que dina mën a jullee comme ni ñuy jullee. ah moo ah ñi fi raw fii jàng di ñi fi raw. yii bay na caay-caay yoo xam ni jàng ko defe ñoo koy def ah ñuy jàng gis ko mokkal alquran di def ay rab ak ay yenn yenn yi mokkal alquran laa mokkal bàqara ba naasi nga mokkal lépp di def yëfu caay-caay jàng-jàng jotewul loolu daal gis nga jàng xam-xam xàmmi moo ko yor boo xàmmiwul amul njariñ soo xamul jàngal soo jàngee xamal soo xamee xàmmeel mu jeex mu jeex bana bana stable xam nga mooy lan eh, dama <laughs> laa la mooy lan stable nit ku dal moo ko moom nit ku dal bëri na ku dëkk ci benn immeuble te xelam dalul xolam dalul mu ngay jaaxle am na ku dëkk ci néegu ñaxam xelam dal na xolam dal na jaaxlewul nañ bàyyi xel loolu nit du nit mënul weesu nit nit rek la mën a doon nit mën loo mën a am loo mën a sol loo mën a doon mënoo wees nit nit rek nga mën a doon waaw doo dara du nit rek nga mën a doon te gis nga budul budul yére yi gis nga lii ma sol nii xam nga léeg-léeg nga naan sañse bi nangam su ma ko summiwoon def yaramu neen lu may de lu ngeen di gis ah ko da ko suturaale da ngeen ko suturaale waaye da ngeen gis leneen waaw waaw léegi kon kon kay yére baax na ci nit seetal budul yére rek ñu xool sa yaram sa yaram mu neen yépp ñu gis ko bu amul tubóoy noonu bu amul mbubb noonu su ma soloon lii def tànku neen nag di waaxul di dem luñ may tuddee dof et pourtant maa ngi yére yu sot yu set waaye tànk neen yi ma def dàll mooy mottali nit waaye boo soloo ba pare soloo mbaxana duñ la wax dara dañu seet li ñuy def bu ñu seetee li ñuy def xam li ñuy def moo gën waaye jàng daal du dara jëfe mooy dara te nañu wàññi wax yi te bëri jëfi nañu wàññi wax yi bëri jëf yi waaye wax rek wax Sénégal wax wax wax wax ko bëgg a tukk tukkal sax wax rek koo gis mu ngay wax koo koo dëkk dékk sa micro mu wax koo dékk sa micro mu wax koo dékk sa micro am na ñoo xam ne yàkkamtu ne bañ dékk leen micro ñu wax musiba boo xam ne jubluwuñ ci daara kat nit ñi mbamb leen rek loolu lañ jëm ñoom seen yoon nekku ci dara nañ neen bamba rek dooy na waaw loolu lañ ci bëgg te loolu loolu du àdduna loolu du àdduna àdduna du ngay da ngay nekk nit ku dal gis nga dem dëkk foo xam ne waroo faa dëkk amul njëriñ loo mën a am dëkk ak sa wuy jur ko dàq demal dëkk ak dëkk say rakk ñu di la gis man de maa ngi ñetti étage ci waawoon waaye ci seng balaa dëkk ci daal bi ñëw nga fa am na ñu fa ñëw mm-hmm. ah. ca seng balaa dëkk seng seng buy taw damay taataan taataan ay bool lay teg ak i pot foofa laa dëkk ca daara ja te maa ngi ñetti tas mën naa caa dem pour lan ma dëkk ca daara ja foofu laa amee stabilité stabilité pour nga am ko dangay seet fu fu dal sa xel rek nga nekk fa waaw tey bu fekkonte ne dem naa sama kër dara am ci daara ji kon man la ñuy condamné mm-hmm. dañ naan ma lu tax nga bàyyi xale yi fii dem tëdd fële kon man la ñuy condamné waaye bu ma fekkee ma tëdd ak ñoom ci daara ji kon kenn du ma condamné ni day am xel xel moo am solo waaye xelu amul solo xel moo am solo waaye xelu amul solo xelu mooy di daw di daw di daw di daw di daw ba dee amul njëriñ nañ xelu rek waaw déet ku nekk ci lu baax la ñu ne bu labee ci ndox texe na ku nekk ci lu baax waaye ku nekk ci sa mbon moom yaa xam yàlla moom du àtte kenn kenn kenn kenn lu dul ci jëfam rek li nga jëf lañ lay àtte su fekkee ne yow àdduna da fi nekkoon di jëf lu baax boo dee ci ndox ñu ne kon jeex na boo dee safar ñu ne baax na waaye boo fi jëful lu baax du am dara loolu ay waxi caaxaan la rek ku dee ci ndox dangam nangam na fekk rek nga nekk ci lu baax soo nekk ci lu baax jeex na ku dee safara euh, texe nga na fekk nga nekkoon ci lu baax soo nekk ci lu baax boo jógee safara yu dem safara wu gën a tàng de ah, gën a saf sàpp waaw bu gën a saf sàpp ngay dem waaw moom amul wax nañ bàyyi yombal yi ti ti teg mbir mi ci yoon nañ teg mbir mi ci yoon nit ñi mën a xam li yoon waaye kenn xamatul looy def ndax bu ñu waxee li wax li wax lii wax doo xam wax booy jàpp doo xam ne nit ñi dañu jaxasoo ci diini jéeg ustaas yi waaraate ñëpp kenn ku ne ak la ngay wax waaw loolu nag bu ñu ko defee du baax dañoo war a déggoo méngoo ci benn baat waaw moo gën mhm. kii ko boo ko bëri caaxaan ku rey ku def bàkkaar ñu rey la ki lay rey mooy yóbbu sa bàkkaar <laughs> ah, ah yow yaa neex yóbbu bàkkaar ban kenn du ko yóbbul dara boroom ñaari tur bu leen ko góor jigéen ngeen di wax góor jigéen mooy góor gu juut ji nga góor jigéen mooy ku yàlla bind mu am ngóor a am jigéen ku yàlla bind lay doon mbindeef la amoon na suñ daara wane nañ ko ci tele bi am na fi góor jigéen moom dara mbindeef lay doon dafay am li jigéen di am am li góor di am ñu ne kii de góor la jigéen la waaye koo xam ne dañ koy juutal di ko séyee kooku moom mbaam rek mbaam mu bon la kooku du dara waaw bàyyi leen xel ñaari saay-saay yu daje di séyante ak góor jigéen du benn góor jigéen yàllaa koy bind mbindeef lay doon nga xam ne moom foo ko fekk góor la jigéen la waa léegi nag góor jigéen jooju bu deewee niñ koy miraase koo kooku niñ koy gis nga tey bu demee di doon buñ ko doon miraas su fekkee nguur gi day dox jigéen gi di dox ñaar yëpp ay waaw ñaar yëpp ay doon nguur gi day dox jigéen gi dox dana doon ngóor gi dana donn jigéen dana donn su fekkee jigéen gay dox rek waaye góor gi doxul kon jigéen ngay doon bu fekkee euh, góor gi rek ay dox jigéen doxul góor gi rek doon góor jigéen laan su baayam deewee wala wala kennam dee mu war a doon dañuy seet ni moom ñaata la am ñu ne góor jigéen la ñu ne kon lu muy doon ñu ne nañ seet moom ndax mu ngi dox wala doxul. ñu ne ah góor ga dee moom lay sawee moom lay defee lépp jigéen nga doxul ñu ne kon góor rek doon ñaari cër rek lay am su fekkee nag seet nañ jigéen nga itam di dox ah ñu ne kon dana am ñetti cër ndax góor ñaar jigéen benn day am ñaari cër góor am benn bu jigéen foofu de sas moom sas bu dee kooku bëri alale am na sens waaye nag moom <laughs> góor daal moom daal yàlla na nekk benn rek moo gën lan ci kookoo déggoo li ma wax dama ne la góor jigéen ku ko rey du tee muy góor jigéen rek dama laa wax nag ne la góor jigéen moom mbindeefu yàlla la yàlla ku bind ñu tuddee góor jigéen waaye ñaari góor ñuy sëyante ñaari saay-saay rek lañu ku ko rey yow yaa dem fekk waaj ñuy sëye nga rey boo ko reyee nooy yenoo bàkkaar ba yow nga rey nit yi ci benn sart nga koy reyee da ngay laa na seede yi mat nañ ko gis mu wóor waaye yow nga dem rey nit ki yow amoo benn ki yow kay de yow kay day yow kay sa bopp bàkkaar yow yaa yenn sa bopp bàkkaar bu rëy rëy fi dof dof lu ba rey fi nit ku mel noonu billaay da am problème <coughs> <coughs> nañ ko war a tëj giir dundam mane ne dama ne ndaw seeg ña ca bokk ñépp ñépp ñëpp luñ def ndaw si def leen ko kompaloo la ku ca bokk luñ def ndaw si danañ la ko def bu ñuy tëj giiru dund nañ leen tëj ñoom ñëpp giiru dund bu dee dañ leen di rey nañ leen rey ñoom ñëpp mu jeex waaw jigéen ak darajaam jigéen ak personnalité na fekk mu xam luy daraja na fekk mu xam luy personnalité mu mën a def ci boppam personnalité nit ki muy wut gëdd boppam xam nga teg leen ma fii man kenn du ma kenn du ko da ngay teg sa bopp foofa rek teg leen ma fii kenn du ko wax da teg sa bopp fa nga bëgg ñu teg la fa almaru haysu yajal nafsu kenn ku ne fa nga bëgg ñu teg la ñu teg la fa rek waaw teg leen ma fii man kenn du ma nag day tex ñu gën laa yeb rek waaw nañu na jigéen ñi gën a bàyyi xel seen bopp di bokk ci li ñu war a bokk bañ a bokk ci dara nekk nekk jigéen rek ndax loolu laa xam moom de bu génnee àdduna nga topp télé da ngay sakkanal da ngay sakkanal dong waaye lay am am na wàññi wax yi ñaanal ko daal moo gën ci ñoom nañ ko ñaanal moo gën ci ñoom ñu topp télé wax bu ëllëgee kii wax lii kee wax lee kee wax lépp dafa yàq nañu ko ñaanal ñoom ñi bokk ak moom ak képp ko yëg nga ñaanal ko rek man nag xaw ma góor jigéen la xawma du góor jigéen man loolu du ma ci dugg waaye bu dee moom la ah kooku na kon <laughs> maa day taali waaye bu dul moom nag ah ba tey maa day taali gars kon daal ña ca kii danañ leen kii danañ leen kii de waaw. kii maanaam. Ah, danañ leen hmm, rek nga tàggoog kay sant rek ak ñaan la daan ñaan ca Macky Sall loolu laay ñaan ci Bachirou Euh, moom lay ñaan ci Bachiru réew dañ koy dañ koy pa dañ koy séddoo kenn ku ne la nga man nga def ko la nga manul wàcc na la lépp lu muy diggee na ko man rek su ko manee baax na su ko manul baax na waaye boo ko manee diggee ko moo gën waaw na bàyyi xel boppam bàyyi xel réew mi bàyyi xel doxalinu réew mi bàyyi xel ni kat dañ ko fee teg ngir jaamu yàlla yi mu def ca la mu man la ci teel mu bàyyi waaye li ko gën a may chance li koy gën a may chance nag mooy mu jël mbir mi delloo ko yàlla ndax na ko delloo yàlla rek ndax allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tansiul mulka mi man tasha yàllaa ko jox nguur yàlla nag bu la joxee dara da lay seetlu ba xam ndax da koy jéem a téye yow wala da nga koy delloo yàlla boo ko delloo yàlla nag mu muy sa na ko delloo yàlla ti def li mu war a def waaw loolu rek laay wax a ah, ndax itam nag euh, am na ku fi nekkoon jógee na liggéey na nag wax dëgg yàlla ba bëgg a dee Macky Sall liggéey na ba bëgg a dee Sénégal xamul lu ñu doon Sénégal ñoom ñu ngi noonu fi nekkee duñu wax dara defoo dara nangam nangam defoo ñoom liñ bëgg nga jël xaalisu réew mi jox leen ko ñu noosee ko benn yoon nag loolu nag man nekk jël xaalisu mi jox la nga di ko noosee mooy lan loolu mënta nekk liggéey la réew mi li ñu bëgg moom daal li ñu bëgg liggéey na ko jam ñaajo gee ku fa dem na mu ko def wax dëgg yàlla war ngaa wax Macky ba muy demal ne ko jaajëf waaye gis nga nit ñi rek waaye moom bu ko nit ñi gisul yàlla gis na ko yàlla gis na ko te yàlla na ko fay kii fi nekki na góorgóorlu rek na def li mu mën xaalis bi du pour nit ñi nga koy jox defal ko nit ñi ci liñ bokk def ko ci yoon yi def ko ci ndox mi def ko ci faj mi def ko ci lépp loo xam ne doomu aadama yee ko bokk nga def ci loolu loolu la ñu bëgg waaye nag doo doo ko defee comme nii rek fu ne nga pàcc pàccal fa yóbbu loolu doxul dara waaw loolu rek laa koy wax di ko ñaan mu góor góorgóorlu rek wasalaam